mbokk na fi jubluwaay yu gën a màgg ci lislaam lii di boole xoli yi bëggante ak mbokkoo diggante jullit ñi looloo tax yàlla daldi yoonal jullit ñi daldi booloo ci lu bari ci ay jaamu yàlla lu mel ni julli korite yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa nekkoon na di digal nit ñi daal di génn julli ji korite ba mu digal sax jigéen ñi gis mbaax mu ne ngir ñu daal di seede yiw bi ak ñaanu jullit ñi sopp nañ mu daal di sangu sol ay yére yu rafet taaru ngir bés bi sopp nañ tamit mu daal di xëy lekk ay tàndarma balaa moo dem julli ji ngir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di lekk ay tàndarma bu xëyoon balaa moo julli ji waxtu bi mu ngi tàmbale bu naaj bi génnee lu tolloog xeej ba tisbaar di dugg sopp nañ tamit ñu daldi koy julli ci bayaal buñ ko jul tamit ci biir jàkk dara nekku ci lu dul dafa fekk ni am bayaal jàppandiwul wala bokk yegg ci lu jafe la kenn du ko liqaamal kenn du ko noddal julli bi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di julli julli korite wala tabaski ci bayaal li mu doon njëkk a tàmbale mooy julli bi melokaan bi mooy da doon kàbbar juróom-ñaari kàbbar ci rakk bu njëkk kàbbar armal bi dala ciy duggaale ñaareelu ràkka bi mu kàbbar juróomi kàbbar waaye kàbbar bi muy jugaale duñ ko limaale léeg-léeg doon na tari ci ràkka bu njëkk suratul ala ñaareel bi suratul xaashiya léeg-léeg doon na tari tamit ci ràkka bu njëkk suratul xoof wala ñaari ràkk bi suratul xamar topp mu daal di xutba sopp nañu ñi di ñi daal di teewal xutba bi waaye tamit daal di teel a dem dox bu ñuy wàññi ko tamit ñu jaar beneen yoon bu wuuteeg biñ doon biñ doon dem sunnaa nañ tamit ci képp ku julli bi faat mu daal di koy fay niñ ko doon jullee waaye du mat kontaante ci korite lu dul ci topp yàlla ak def lépp li nga xamante ne moom la ci yàlla yoonal